niki lii di nga xam ne moo di xëy Covid 19 mu ngi continuer si àdduna bi nit yi nag ñu ngi daal di dimbale nguur gi ah, pour ñu daal di xeex lii di feebar yi mbas bii nii ñii di nga xam ne nag moo di support our own ñoom nag ñoo dimbale nguur gi seen xeexi lii di Covid 19. Mam Poul Semega Jaane moom nag bokk na si lii di nga xam ne moo di support our own ñoom nag wax nañu xaalis bu toll si 1.4 million lañ daal di teral pour daal di ko dugal sa xeex bii nii. xaalis bi nag ñu ngi ko pare pour jox ko ñii di frontline workers yi ak yeneen bunte yi nga xam mi nag ñu ngi si xeexi covid 19 bii nii ki mel Red Cross Society ate nag ñu ngi kontaan trop pour daal di asi bagage yi ni bagage yi xam ne ne jamono bi sa àdduna bi pour am ko mu ngi daal di jafe waaye nag dina daal di eh, dimbale trop si lii di nga xam ne nag moo di xeexi covid 19 bii nii lu toll si 500 eh, adult non rebreather mask ñu ngi ko daal di am ak post oxidators eh, ñu ngi ko daal di am 30 oxygen flow meters ak lii di nga xam ne moo di 1000 vials daxi Maximazome ak 10000 tablets Dexamethasone lii yëpp bokk na si yi nga xam ne nag dindaa di aar a yi seen bakkan Babanding Sabali moo nekk director of pharmaceutical service moom nag fal na torop ñii seen ndimbal bii nii maa ngi jaajëfal torop ñii si seen ndimbal bi nii parce que lii di a xaalis buñ ci dugal a loolu nekkut wax bi waaye nag bagage suñu asi nu moo daal di njëriñi askan bi nag mooy wax bi te bagage nii dégg-dégg dina daal di dimbale nit ñi nga xam ne nag ñoo am covid 19 bi te ñu ngi fële sa treatment centre bi parce que lii nag dina daal aar seen bakkan Sana Samb moo nekk coordinateur bu épidémiologie ak disease control unit moom tamit woon na woon na mbégteem sa ndimbal bi ni tey nag luñ fi gis li nekkut njëlbeeni yoon waaye nag ñi tamit ñu ngi leen a jaajëfal ni ki ñoom génn si nañ ñu daal di woon ñoom luñ mun a defal Gambia bi surtout sax Gambia ni seen wàllu wérgu yaram bagage yi nag xaalis buñ fa garab ak yenn bagage ñu mun a jëfandikoo pour daal di faj ñu am covid-19 Paradise TV News Mamadou Koli